alal jiin bismillaay ma dee ci door maam góor gi njaay sutub maram jiin bàyyi maam maram njaay réew maa ngi may soow te ko mi soow booba danga siiw bàyyi ndey ak njaay maa yàgg ci coow ndaara yàgg na maa jiin ba ñu dalee jiin booba tuuti booba ma dalee damay jooy waaye léegi nu ma dalit damay xeeb jeex na Cheikh Omar bi mu ko defee laa ni jeex na Coly Faye moo jëkkoon bés bi Cheikh waaye jast bi mu def kenn d'accord ci ku ne xam na ni Coly Faye na bés bi ci loxoom teewoon na làmb ci loxoom moomoon na bés bi tey ndam rek la ndam rek la àndaloon waaye li mu def tey sincèrement kenn d'accord ci malab yàlla di borom bakkan nga wéq wéq bu toll noonu ba lii am tey doy na waar Cheikh Oumar. jëm Ibrahima Ada Fass fan la. sant yàlla sant yàlla sant yàlla waaye sant yàlla. alhamdulilah. Ada Fass day continuer yoonam Cheikh Oumar. Ada Fass nee sant yàlla day continuer yoonam xale bu place la ci làmb day continuer yoonam c'est sûr et certain. دكونا شيء تركنا عيش عمر الحمد لله ما منه الحمد لله ما منه الحمد لله ما منه الحمد لله ما منه الحمد لله ما منه سوسي سوسي قول ما dañ cey tey mais lan moo tax door maam góor njaay sëtub maram jiin bàyyi maam madam njaay réew maa ngi may soow te ko mi soow booba dangaa siiw bàyyi ndey ak njaay maa yàgg ci coow yàgg na maa jiin ba ñu dalee jiin booba tuuti laa booba su ma dalee damay jooy waaye léegi nu ma dalit damay xeeb lay bari